way mom sax mom de kenn xamul fu bok abu abu yow foo dëkk yow la lay lay géej waay laa bokk géej waay laa dëkk non yow géej waay nga dëkk wala pikine nga dëkk géej waay laa dëkk nag mais lu lu la bolé pikine la pikine dañ ma sonal rek sama keur mam mo fi nek nak kuy sa mam ci pikine lay sama mom lu lo lo mam ak fa lay ak ak ki jur sama papa ñoo bok ndé ak bay ki jur sa bay ak ak lay bala ñoo bok ndé ak bay ah waaw way yow mi kat kon ca ca nga bok sama lepp la laa pikine wa fi la beurel dama jógee Géejawaay mais su ma mosaan jógee ma ñëwee fii sa maam bu pëli mosaan indi soow bu jëndee soow pëli day teg cosaan ku daan jël man ay ñoom Sakop ay Ama ay ñoom kii. kenn dinaa leen waaw ñi ñu leen maxoon nag. maa leen ay Elou Diop Ousmane Ginte ñi ñu leen bële. mais soo musaa ñëw nag. Ah. may may ràpp de. da nga laal da nga leen di ràpp. ñibbi. soo ñibbi mu ne amoo amoo ngi ñëw <laughs> mais tey ah, Eumeu Sène ak Ama wala Eumeu Sène ak Pokola bokk benn open press say loolu boo ko dee gis en tant que surtout Fallaye Balla tamit donte yaa ngi yore micro mais loolu lu muy def sa xol. waaw geste bu rafet la Pikine bu ñu xaajali ko luñ bëgg duñ ko am mais bu ñu boole dañuy soxla lépp parce boo xoolee Pikine 2018 Pikine 2012 Pikine daan ko booy Niang daan Sa Thiès am ma seen jël wàllu sa rek loolu boole ma ko indoon def caravane bu rëy jël drapeau ba Pape Sarr ànd ak ñoom def caravane bu indi dëkk bi mais boo damaa gisee dafa mel ne waxu journaliste yi daa defar Pikine mais dama gisee bañ jëlee combat yi am combat bi dos diggante Ama Baldé ak Boy Niang muy rëg rek ma ko Pikine dañuy ah ñu waxtaan balaa li ñu dal contre moom la li dalaat xam nga benn pied gauche dugub Pikine jàpp. daan leen doy na war doy na war il am pied gauche bu mel ne Papa Diop am pied droit Papa Diop muy deux pieds ci lamb kon ñàkk waxtaan am na foofu noonu ngir am ay daara ci lamb ngeen am Balla Gaye 1 Balla Gaye 2 ngeen am Papa Diop Jules Baldé Balla Mansour Diop ay kàngamu lamb Mbaye Diallo Mbaye Diallo grand am ñu ñu ci lamb ay Abib Ndiaye ñun ñëw benn paie jàpp leen ci lamb ràpp leen ñu Modou Lo Modou Lo bëgg leen a xaaj gaa gaañ gaañ leen ñi <laughs> mais ne xaw na ñoo noyyi tuuti de démb. waaw démb. waaw te ndax la da leen a bokk maam rek ñoo bokk maam. waaw. waaw tamit daan na ci Pikine la de. waaw boo xoolee combat bi sa ko man de bokk naa si ñu gën a daw ci combat ñu gën a dugal ci lamb yi man bokk naa naaj. dama koo xas dama koo xas. dama ñëw ma ne Gilles lu tax nga jox ko combat bi Alboury moo ko mën ah li nga ko wax nii laa waxee mu di la dégg di dee ma ne Alboury moo ko mën la ma lay jox ko combat bi ma ñëw ak Babacar Balde ma ma ma ne Babacar la ma doon jox sama combat bi mu ne ñu ma ah sax bi ma ko jëlee boppam baraw ma jëloon de ma dem ci ménagère am Pape Diagne ma ne ko yéen Jacob.

así. xam nga coow lee bari mais Zarko dafa mën a bëri ak mën a bëri ko dégg war daanaan la mais Eumeu Sène Sa Thiès na ma koy jàngatale Sa Thiès daa dugal Sa Thiès daa dugal Eumeu Sène ci combat mu ko ci dugalee ay man nga dama lay daan léegi Eumeu Sène ne ko jamono jaa gën a yëg doole Eumeu Sène buy bëreeg soose yi buy bëreeg soose yi day bëreeg histoire. nga ne Eumeu Sène saa buy bëreeg soose yi day bëgg a ci lamb maaraabu soose yëpp daan leen ci lamb xam nga lu bëgg a def waaw soose joola séeréer ay kan lañu waaw eh, saa kees daa mun ci ëmmase eh, daa mun ci gaa yooyu dara daa mun ci ñoom dara kër du balees li ñuy bëre yéemul saa kees yéemul yéemul ëmma seen kër du balees li ñuy bëre yéemul ëmma abu li ngay wax garaaw na de non yéemul ëmma seen de maanaam ñoom li bëre ba ñu yor jaaxalul ëmma damaa fekkee ba kan lay laaj dama xam damaa fekkee dégg taxaw. xam waxal li nga fekkee. Eumeu Sène ne. waaw waa Kër Mbales. bu ñu jàpp dañ lay daan. bu ñu jàpp dañ lay daan dañ lay daan. ma ne ko foo ko teg moom dañoo dañoo am yàq. balaa dafa baax. Moussa yi moom rek baala nga koy appelé wu jàpp sol ko maax xañ ko ngemb li baa moo ko mën a mën a fi mën a ko ma ne ko balaa moo bëgg a neex mu riital sama kaw. Maodo Sarr kii wàllu eh, eh, sa Thiès dama seen dégg naa ko mu bu ko kenn bàyyi loolam daan def. waaw daa daan paap jël bu rëy daa daan paap dama seen. waaw benn sampe njaago la moom. adressé moom. waaw paap boobu ay mbaam lañ doon teg lu ne. waaw paap ni am na seen mën a jël nii nii sa Thiès mel ci laa loolu la Pape Ndoye ci làmb jour ba mu ne bëri dal ci kaw Eumeu Sène làmb ji ngeen gis ne Eumeu Sène jàpp na mbër baaraam bu mag daan ko daan Eumeu Sène ba muy jógee Pape di këf tànk bi benn la muy toog Eumeu kii Babacar saa kees am na combat saa kees am na combat am na combat mais yow daa mel ni favori Sadio daa mel ni yow favori Eumeu Sène la ko jox mais saa kees 60 40 la 60 yëpp Eumeu Sène la ko jox ah ndax boo bëri waaw ëpp ko doole ñaari yoon xam nga doole ñun dañuy analyse doole mais ay góor bu ñu daanantoo bu nga xam seen doole caatu yob caatu yaraax mais man démb li ma analysé damaa jàpp ne moo fa feeñ. moo fa feeñ. parce que bu ma ko ba doole da nga cong la. day ko song song bu rëy. oh caatu yaraax. ndax day day leen ci ndax daa mën a dama koo xam. ma ne 60 40 yow ma ne ah dama far ma ne faruma de Aliou Seydou moo tax bëri Quench ñëpp ko waxee. Aliou Seydou moo tax xeex Quench ñëpp ko wax te démb loolu moo am. xam nga ni Quench ban problème la Babacar fan laa jaar waa ji parce que dañ koo xañ bëre bi. waaw ma lu ma doo bëri si. te dañuy xeex kon te boo xeex dama lay dugal. ndax yow li nga may dóor moom may dal waaye du ma def effet. waaw te yow su la dóoree bu dal da ngay daanu. da ngay daanu. oh kooku lii ba may wax lii démb li li ma tax ma ma wax Abou Sefa. Talfa Youssou Ndour. waaw téeméer bi. le premier. 60 40. kuy am 60. Youssou Ndour moo ëpp lépp. Youssou ëpp lépp du baat Youssou baat yow maa faroo. du def wax ni foo ko mais téeméer bi dafa daanu de ba sëdi sëdi mercredi ginnaaw suba sëdi vaar ma ah démb la ñu may vaar man leen nañu vaar dana Youssou appelé lépp foo appelé lépp Youssou waaw ci bëre di ci doole côté bëre mën na ñëw méngoo dal fa mën na gën a ës Youssou Ndour ñu jàppante xam ne oh Youssou Ndour Youssou Ndour daanaan la ah

lii nga def dama bëgg baaba def ko. Daadu Yoff daa daan waaw démb démb problème. tey maa ngi Pikine kii sëtu Fallaye Balde la. waaye kii doomi Ndiaye Samba Mbuub la di di jarbaatu Alaaji Bekkaay Mbay di bàyyi Balla Mbuub borom Bantamba borom 2STV borom FM saan bi laay wax nga dëgg. du xuloo doo xel doo waaye yow bu ñëpp meloon ni yow. jàmm bëri ci réew mi ndax dëkk bu naan ak yaay nga jógee. waaye bi nga jógee ak yaay ak léegi ñaaw ndakaaru gi defoo fi lu ñaaw waxoo fi lu ñaaw sa micro bii yaa ngi ciy wax lu baax te loolu mooy réew nañuy xool liy boole réew mi di xool liy jubale réew mi di ko def parce que micro dafa garaaw loo ciy wax nañ ko xool Babacar yàlla nañu yàlla muccal ci accident làmmeñ baax waaw yàlla rek moo mën a muccal doomu aadama mais Babacar tey tey bëgg naa ñëw fekk la fii. mais mais li ma lay laaj mooy. Baye Balla ñu ngi ak sant ko fii nu taxaw. bu ma doon dikkaatal historique fii fii nu taxaw nii boo ma doon boo ma doon fàttali looy fàttali Sénégalais yi ci wàllum lamb looy fàttali Sénégalais yi rawatina ñu lay seetaan à travers Dakaractu en direct li ma la mën a fàttali mooy diggante Modou Xarañ Lo ak Issa Pouye. waaw daje nañu fii ci stade Alassane Djigo. bilaay ndeysaan Modou Lo Issa Pouye Modou Lo Issa Pouye bëri nañu fii ci stade Alassane Djigo xanaa mbapat la woon du mba du woon mbapat de lamb la woon lamb lutte avec frappe bis bi ko di daan fii la ko daane ci stade bi Alassane Djigo la ko daanee stade bi taarix la bi xanaa loolu bokkul ak euh, bi mu koy Demba Diop déedéet ba ku la dem ba jëm bi mooy saako yi su ma jubul bëri nañu deux fois. waaw bëri nañu deux fois deux fois la ñu bëre. waaye loolu ñu bëri xam nañu waaye déedéet lu bëri ñu bëri xam nañu woon loolu mais bëri nañ ci stade bi. continuel stade bi stade bi dafa bëri taarix dafay yàgg. ci foot ci football stade bi. waaw saa bu la nee stade Alassane Djigo sa xel dem ci aspect kii. waaw ah ah. Amar Fall Mbomo. Amar Fall ak Mawla bëri nañ fi. Amar Fall ak Modou Lo. waaw bëri nañ ci stade Alassane Djigo gi. saa bu la nee stade Alassane Djigo sa xel dem ci. sa xel dem ci AS Pikine. bu la nee stade Alassane Djigo sa xel dem ci Jaraaf. sa xel dem ci Casa maanaam boo ñëwee ci wàllu football. maanaam tey équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo naan championnat bi ñu ci bëri football nañ ci stade bi. waaw li ma la mën wax ci bu dee ci wàllu ci cadre lamb la. waaw Modou Lo tey a wax lamb te doo ko tudd. waaw parce man jaaxal na ma mais Modou Lo daa mel ni moom da doon wër di riitale. parce que Modou Lo Guédiawaye. waaw Modou Lo Pikine. Modou Lo xanaa moom wër dafa nekkoon. Modou Lo la jor fii la woon. Modou Lo la jor fii même stade parcelle dafa rampe

la daane woon un monsieur Modou Lo dafa rampe ci làmb Albourakh Events Baye Ndiaye xam nga ko mu tëgg journée boo xam ne lépp ay grand combat la waaye tey Eumeu Sène ak Pokola def benn open press fii ci Pikine ñu gis doomi Pikine yëpp génn mu mel ni Pikine ah daamin dañu tëb beneen tëb yu jamono ji may wax nii ak yow Pikine lan la soxla mooy mobilisation Eumeu Sène dafa def loo xamante ne dafa am solo mook Pokola dañu dañu wan Pikinois yi ne ñoom ñoo bokk Pikine kooku nag Eumeu Sène mooy seen mbag mbër muy yeewoo ci gox mbër muy yeewoo ci gox ak sa yeneen baaba sa xel ak sa xalaat li ci nekk lépp mooy jël titre roi des arènes indi ko sa bopp Modou Lo bam ci doole def na ko Mike Tyson bi mu ci tolloo fii ci Pikine def na ko Eumeu Sène bi mu ci tolloo fii ci Pikine def na ko kon Eumeu Sène mooy seen mag ñoom nañu ñëw ànd ak Eumeu Sène topp ci ginnaawam jël drapeau Pikine ñoom ñëpp téye ko jàppalante def mobilisation parce que mobilisation dafa day waar de Pikine bu nu boolowee bu nu boolowee nga daan leen day métti parce que Pikine dafa bëri ay ndaanaan dafa bëri ay bërikat dafa bëri ay champion Babacar moo tax booloo bi moo leen jik moo tax tey li am seen def ak Pokola vraiment geste bu nice loolu day wane ni ñoom mbër amuñu benn problème ci seen biir mais ñi comprendre ñoo comprendre mais lii moom rafetlu nañ ko nice na vraiment di féliciter Albourakh Events bis bii bis bu la bis bu ndaw kenn du bàyyi Njaay mais yow mais waxuma la Eumeu Sène de waaye dama ne la Pokola Balde. waaw. ak Youssou ah! Diallo. waaw loolu leneen la mais nag dama ci am combat man. man mooy sa euh, ak bu Siteu. Oh, loolu sama combat la man. lu sa combat. waaw parce dama bëgg combat dama bëgg wax dama ah. na ci combat yi gën a neex. ci combat moo tax ma ne ma ne mu parce que expérience face à la jeunesse ma ne ko gis nga ni Tapha Gueye numéro 2 ak Laurent Ndiago fii ci arène nationale loolu bett am na ñu mu bett waaye am na ñu mu bett parce expérience la bëri foofu bu neex la sama combat la mais Liss Ndiago ak Pokola Baldé ñu ñëw ci jàmm ñu bëri ci jàmm te xam ni bëree lamb fair play la ñu bëri ko mu rafet wala Alboury démb li mu def ak sa compante réew ñëpp ñoo ko rafet lamb culture la Babacar démb stade bi ñëpp a kontaan mais parce que moo tax Gaston production il faut ñu féliciter ko démb dafa def démb amateur yëpp a dégg mais waxuma la Alioune Seye numéro 2 ak Coens mais classe classe classe bi rek doy na dafa doy journée waaye caatu yoof surprise dafa am foofu li war a surprise bi mooy caatu yoof li ñu def ci bopp bi la yaa ko man dama tànk ñu bi jël fa bëri bi jox ko te loolu wóorul te caatu mën a bëri lool am ci rag am na mbër koy bëri ma ko joxee respecté ko bëri moom jàpp daan comprendre nga mais démb am na am na dafa ko bett ko chaque jour loxo dab gémmiñ des fois nga gis mbër am defet boo xamante ni Babacar yow mii reporter sax daf lay jaaxal parce que bu la ne woon mbir mi tey dina daanu ci combat bi yow doo ko moo tax caatu moom tamit champion la ndax jom ji dafa bari démb dafa démb dafa siisu waaw xëccu ba sonn ni mu génn kiw bi loolu jom a koy maye jàmbaar la kenn tax ko bëri mais li ñu def ci maayam bi la dañu def ci maayam bi que ni classe bi yaay fa bëri bi classe bi kenn mën la ci laa ci man loolu erreur la bu ko def di bëri waa comprendre foo man mais Ndiaye Tine Gamou Gueye mais booy dañoo remplir seen contrat démb mais Babacar Ndiaye Tine Gamou Gueye démb dañoo bëree ba naaw indi Ndiaye Tine état bu la indi moom seen premier round moo lay wan ni ñaari booy dañu pare combat bi. moo tax euh, premier round bi foofu litige bi mu amee ñu dem VAR ñëwaat Malick Ngom surtout très grand arbitre. Malick Ngom kenn du moom. non Malick kenn du moom dinaa la ko wax. daan naan la daf leen woowaat. am na arbitre yu ci yoo xam ne bu doon ñoom la. ñoom même ñu bëre boo ñu bëre bëre bu neex ko te ñoom ñaar démb kenn bëgg ci woon defet parce que ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa am defet comprendre nga jaay ci la caatu caatu yof daan ah gàmmu gay caatu yaraax daan ko démb place bi neex na waaye Doudou Sané. garay Doudou Sané Doudou Sané. Doudou waa Sané. nee naa leen moo xamante ni. dafa compétir compétition bee bari ci yaram bi. ba pare du mbëri simple boo xamante ni dafa tële xeex. mais démb boo xoolee remise garga loolu xaaroo ko woon Babacar am garab am ko koy dóor daa am daa am naam bi bilaay saa nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel ba pare luur bu toll ni garga de il a mal lutté dama koy wax su ci kaw bi mu bëreeg moom bi moom yow luur bu toll ni dul saa na nga ñëw ne ko kaay ma wala ci xeex ñu xeex par force xam nga li ma la mais loolu bu ah, toll ni Doudou Sané bu encaissé coup day def aussi day def effet mais ñi ngi koy moom Garga 2 champion la waaw démb démb tournoi bi Kontan, kontaan ah ñëpp kontaan ndax tournoi bu neex Babacar xam ma mais Prince ñu koy félicité ku yaru waaw dafa yaru ñaar ñu yaroo doon bëri dem Prince ak Aline Sey déggoo dama dama naan dama naan ci sama xel oo oh, ñaar di bëri day mosa ñoom tey kenn du daal ndax ñoom ñaar ñaari mbër yu yaru ñaari mbër yu baax ñaari ak lu lamb jëpp nangu seen yar ak seen nekkoon si ku gëm yàlla la ñaari damay dugg mais benn génn démb Alioune Seye 2 la yàlla jox ndam li Alioune Seye 2 démb dafa bëre